jotaay bi tutela tutela ni ñu koy defee ajjuma bu ne euh, di fi dajale ñëpp euh, di fi waxtaane lépp loo xam ne mën na euh, ñoŋal suñu réew tey tutela ñu ngi si ànd ak Daouda Diop doyen Daouda Diop di la nuyu di la ziar. maa ngi leen di nuyu di nuyu téléspectateurs yi di leen ziar. aywa euh, Khadija yow di nuyu la ziar. delloo ziar professeur di nuyu naataango yoo bokkal euh, plateau bi di nuyu suñu invité yi di nuyu mbokki xarit téléspectateurs yi rawatina waa Mauritanie dem fekk fa Roissy mi doon euh, souhaité mi doon fêté anniversaire am semaine bi ñu gen di ko souhaité un joyeux anniversaire. waaw war a béré tamit. waaw war a béré di leen ziar Adjara Bonari di la nuyu. di la nuyu professeur di nuyu yi nga xamante ne di nuyu téléspectateurs yi xamante ni ñoo safoo euh, tuuti la donc di leen wax ni rek ñëwaat nañ euh, ci beneen numéro. Euh, Imam Mouhamed Lamine Dramé di la nuyu la ziar. waaw aleykum salaam professeur ñu ngi leen di nuyu di ziar ñu ñuy seetaan ñëpp. di tàmbali suñu kàddu jaale bakkan yi nga xam ne ñoo daanu fële ci Tambacounda ak takk der yi nga xam ne ñoo gaañu ci accident yi fan yi mm-hmm. ñu ngi ñaan yàlla yàlla yërëm leen yàlla xare leen aljanna te yàlla yemale fi bépp fitna. Euh, Amine euh, tey euh, sunu jotaay bu njëkk tuuti la ñu ngi si ànd ak Sonko Madeleine Sonko moom moo sànc te moom moo jiite kuréel googu di l'enfance Madeleine ñu ngi lay nuyu la ziar. maa ngi leen di fay professeur ak ñëpp ci ma bokkal plateau bi jërëjëf ci dalal bi. Madeleine yéen da ngeen am enfance épanouie lu mu doon. enfance épanouie euh, association la boo xamante ne li ko soxal jéegoom bu njëkk mooy euh, xeex pour que xale yi des école. xale yi jàng xale yi di jàng jàng bi mët te même papa jeeg yaay bu nu amee dog-dog waajur yi bu nu amee dog-dog boo war leen xalaat génne ci école bi ñun dañ leen di ci téye. Hmm. jàppale leen utal leen ay euh, yeneen ay parents marraines yoo xamante ne dinañ jël en charge seen jàng ba ñu ba ñu mëtal. mën njëriñ seen waajur depuis kañ la enfance épanouie ren ñu ngi ci suñu dixième année. waaw ah, fukkeeli at bi ngeen ko sant ak léegi di euh, si jaar ñoom Rabia Diallo vraiment. waaw euh, dañ see euh, tey nag li nga bëgg mu leer si bopp ñëpp lan la. tey dañu amoon message bu ñuy jàllale ndaxte dañuy organiser benn déjeuner dimanche gannaaw suba pour dajale xaalis pour. peyooru xale yi seen école ñu bëggoon nit ñi ñëw uyu si ñu euh, ñëw participer euh, ñëw gis xale yi parce que ñenn ci xale yi dañu ñëw fii Dakar gis li ñuy def euh, xam ne ñun ay doomu réew bi la te dañu ci def suñu loxo te yàgg nañ fii ñu ngi koy def vraiment ak discrétion te bëggoon nit ñi Euh, ñi nga xamante ne jàngu xale yi soxal na leen ñu ñëw jàppale ñu. léegi euh, bi ngeen tàmbaleek léegi fukki at yi ñaata xale. Mhm. ngeen jàppale. Mhm. ba ñuy jàng bañu génn lekkool te mën naa wax ne mët na ëpp na 300. ëpp na ñetti téeméer ñetti téeméer waaw. ëpp na ñetti euh, léegi mhm. dimanche bi da ngeen am benn añ boo xam ni si ngeen di woote. waaw ngeen bëgg ñëpp ñëw pour mën see jàpp fan la. Euh, añ bi almadi lay lay doon. Mhm. Euh, restaurant bu ñuy wax le jardin euh, ci point des almadi bi. Mhm. foofu la ñu bëgg oote pour daje pour. kon dimanche diggante midi ba 5 heures si ngoon. waaw fa la daje bi it mhm. ñoom DJ Awadi ñoom. Philippe waaw. Montero ndax ñoom ñoo ñuy jàppale depuis début bi ci association bi. ñoom ñoo fa war a nekk. léegi message bi nga bëgg nag léegi mu leer ci bopp ñëpp message bi ngay wax ñëpp lan la. Mhm. mooy képp ku nga xamante ne jàngu xale yi soxal na la nga contacter ñu euh, pour euh, ñëw pare parrainer def ci sa loxo euh, nga ñëw jël ci kenn ci xale yi. Mhm. pour financer ko jàngam yi nga jàppale ñu pour cycle mën jeex et que xale bi mën jëriñ waajuram jëriñ tamit dëkk bi. léegi en moyenne tey buñ doon wax. pour nga jàppale benn xale. Mhm. ba mu jàng at mi yëpp. Mhm. ñaata xaalis nga si dugal. bu dee primaire bi la euh, cinquante mille la. Mhm. par an bu dee secondaire bi cent mille par an. loolu bëriwut. déedéet. loolu moom bëriwul euh, euh, le message est-ce que tu voudrais le lancer en français. oui alors nous nous sommes l'association L'Enfance Épanouie nous luttons contre la déscolarisation en milieu rural. Et euh, nous organisons donc euh, dimanche prochain un déjeuner caritatif au restaurant Le Jardin à la Pointe des Almadies. Et nous voudrions euh, pouvoir avo euh, avoir des fonds pour euh, financer la scolarité des enfants pour euh, l'année en cours et trouver de nouveaux parrains qui vont nous soutenir dans nos activités. message très clair bu Madeleine Sonko ñoom dañu am benn añ boo xam woote dimanche bi. Euh, fii ci restaurant Le Jardin bi nekk Pointe des Almadies ànd fa ak ñoom Didier Awadi ak euh, Philippe Montero si fexe ba euh, ku si mën a dugal sa loxo ku si mën a jàpp rek ngir daanaka gunge ay xale ba ñoom ñu mën a jàng jàng bu mat dañuy def benn xaarale bu ndaw ginnaaw bi ñu ziyaare sunu ñawkat moom mooy Bara first class fii ci euh, Liberté 5 euh, Babacar Karajo Diagne moom moo nekk tey si euh, technique bi boo ñu mayee benn xaarandi ñu dugal suñu yeneen ñaari gan yi jiitu tey ci Tutela. En voulant corrompre l'imam Diko, le chef du gouvernement Soumelou Boubé Maïga était sur le point de donner 50 millions au Haut Conseil pour l'organisation du meeting du 10 février 2019. Mais l'imam a dit non à cette offre. Donc, avec tout le respect Et je m'incline, je, demande vraiment pardon. Et je vous remets les 50 millions que vous remettez au chef du gouvernement pour lui dire que nous avons décidé au niveau du Haut Conseil de faire de ce meeting-là un meeting de don de soi. Donc, vraiment, nous ne a besoin de l'argent. Nous allons demander de l'argent dans d'autres circonstances. Mais vraiment, pour cette fois-ci, nous voulons que le meeting soit un meeting, euh, comme je le dis, de don de soi.

nañu. li ñam neex nañu. doy nañu doy nañu. diine ak état ay seexandoor lañ mënuñoo taqale moo tax ñu ne président Macky Sall euh, moom dugal na imaam yi dugal na labbi yi dugg na ci jàkk yi dugg na ci église yi dugal na ci loxoom kon nag li ñu war moom ñun ñi nga xam ne dañuy diit jiite jiite dara ci lislaam mooy nu dimbale ko. te jàpp jàppale ko suñu liggéey yëpp nekk ci jéem koo dëgëral ànd ak ñi ànd ak moom sànnil ko carte loolu mooy li nga xam ne moo ñu war. kon nag euh, docteur Cheikh Kanté ñu ngi lay euh, félicité waaye di la dëgëral di la xamal ne sa mbër mi moom mat na mbër jar naa jàppale. di ñaaral ñaanal Cheikh Kanté mi itam lii mu sumba nii di ko defal président yàlla dëgëral. li muy taxawee ak li mu nar a taxawee yëpp nag. bu ko ñëpp defoon wallaay kon président bu ñu demee ci wote bi dafay dal di jàll ci la yomb yomb yomb waaye moom rek moo ci moo ci nekk ak ñenn ci ñu koy dimbale kon kooku jar naa ñaanal ndax loolu yëpp njëriñi réew mi la waaye njëriñu euh, président Macky Sall ci la euh, docteur Cheikh Kanté nekk guddi ak bëccëg moom de ñii de bokkuñ ci ñey wax naan génn leen ci mbedd mi xeex leen xeex ban xeex kan ngay xeexal te kat kuy wax ne nañ xeex ak génn ci mbedd mi sa doom du ca bokk sa jabar du ci bokk sa delloo njukkal ba Karajo Diagne moom moo nekk tey ci euh, machine bi euh, sunu ñaari gan tey euh, Imaam daam Ndiaye Imaam Ndiaye kenn du ko wax moom mooy kan ci réew mi si taxawaayam si wàllum diine jiite fi kuréelu diine waaye di. Euh, kenn fii ci 2 di fi yëngu ànd si tamit ak euh, sëriñ maam Cheikh Mbacke maam Cheikh Mbacke moom AIS euh, moom moo ko jiitee moom it du fi gan sëriñ maam Cheikh di la nuyu di la daal la ziar. jërëjëf Tunkara bisimilah wasalaatu wasalaam ala sayyidina wa nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ngi lay nuyuwaat bu baax di am mbégte ak kontante teewaat ci émission bii nga xam ne miin nañ ko sénégalais miin nañ ci di nuy ci njëlbeen gi sunu xalifa généraux yi nga xam ne. ñoom la AIS di liggéeyal bu ci tuddee sëriñ Mountakha Mbacké ak sëriñ Baye Sy Mansour dana mën a yóbbaale mboolem xalifa généraux yëpp di nuyu mboolem membre AIS yi mboolem jullit yi mboolem sénégalais yi mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan 2STV. Euh, Imaam Dame Ndiaye. waaw di la nuyu la dal la ziar. waa kay euh, ñu ngi lay nuyu di ziara di nuyu mboolem euh, sama doom yi nekk ci taabal ji di nuyu sëñ maam Cheikh. di nuyu mbokk yi topp émission bi yëpp. Euh, imam Dame Ndiaye tey gis nañ euh, léegi léegi gis nañ élément bi euh, imaam yi ni taxawee yenn ci imaam yi ne dañuy jàppale président gis daal ñoom dañu dugg bu baax ci politique bi yow ban jàngat nga ci def. jàngat bi mooy dégg naa ko dégg naa li def samay ustaas lañ samay imaam lañ jàpp naa ne li def am nañu droit def ko. seen seen sañ-sañ la. waaw su leen neex Hmm. mais tey boo dee imaam tey nga taxaw di jiite euh, nga xam danga nga am mbooloo si mbooloo bi ñii ñu ngi si euh, waa PDS a si waa Bennoo si waa APR a si ñëpp a ngi si yow imaam nga ñëw rek ne nañ jàppale kii doo tas sa mboolo ah, xëy na mun na tas mbooto man en tout cas man personnellement. Euh, du ma def du ma noonu man li may def mooy comme ñi may jiitee sensibilité yëpp ci nekk. mooy li may jéem mooy wax lu concerné ñëpp wala ba noppi. Hmm. loolu personnellement. loolu mooy yow lu mel ni àndoo si. du doxale noonu. mooy àndoo si imaam. du ma doxale noonu. tey imaam euh, tey Moustapha Gueye. Hmm. est-ce que euh, lu mel nii di ko si laaye biir ne ko li nga doxalee nii njuumte la. Euh, déedéet ndax oustaz Moustapha Gueye mag la yàgg na ci liggéey bi oustaz bu mag la imaam bu mag la. Euh, jàpp naa ne li muy def natt na ko ba ba jàpp ne mën na ko def mu def ko. mais oustaz ak imaam tam mën na juum. waa mën naa juum ba. parce que yow mi àndoo si position boobu bu ñu la déggee. du ma doxale noonu laa wax. ah loolu mooy àndoo si nag imaam. du ma doxale da ko rafetal noonu rek xaw ko diplomatique noonu. mais lii yow à ah, àndoo parce que da nga ragal mu tax sa mbooloo. Euh, léegi tey euh, lislaam moom yow da ñu ko yàgg wax l'islam contre politique. Hmm. parce que foog ñu doxal. Euh, dundin bi euh, ñoŋal ko euh, ba mu baax te lislaam am na nu mu ko gisee hmm. tey imaam yi bu ñu ñëwee tey doxalee nii loolu du taxawaayu lislaam si yow bu imaam yi doxalee ni mu doxalee nii waaw taxawaayu lislaam parce que ay imaam lañ mais déggin la ci lislaam bokkul ak yeneen déggin yi est-ce que déggin boobu tey am na noo ko mën a laayalee si wàllu alxuraan wala sunna wala déedéet mënu ma ko layal parce que du sama déggin sama déggin laa mën a layal. yow sa déggin. Mm, mm. sama déggin mooy imaam dafa war a nekk ndey ji seex ndax boo nee allah akbar ñi topp sa gannaaw xamuloo ñan la parti politique yëpp a ngi ci parce que Sénégal ay julli lañ ci ëpp ay julli lañ parti politique yëpp a ngi fi tendance yëpp a ngi fi kon da ngaa war a waxee noo xam ne kenn ku ne dana ci gis boppam. léegi tey réew mi ban jàngat nga def si mbir mi nu muy doxee diggante l'islam politique euh, campagne électorale bi falum njiitum réew ban jàngat nga si. bon jàngat bi mooy c'est très compliqué c'est très compliqué parce que loolu d'ailleurs moo tax ñun euh, ñu préparer benn mémorandum pour euh, xëy na da nga ci agsi wa boo ci agsi tam ma anticiper ci pour jéem a organiser ni dëkk bi doxee parce que fi mu ne nii kenn xamul kanay kan kenn xamul lanay lan diine ji ak politique bi dafa jaxasoo amul benn norme bu ko définir bon kenn xamul ku nekk ci dëgg ku nekkul ci dëgg donc c'est très compliqué donc man li ma jàppoon mooy diine ji ak politique bi dañ ko war a formaliser cest à pour pour bañ a wax politique mais diine ak état dañ ko war a formaliser bu ko dee ñu xam kan mooy kilifa diine xam kilifa diine lan la yellool xam loolu mu yellool ñu ñu budgétiser ko yóbbu ko def ko ay loi yóbbu ko assemblée ñu wote ko bañ a bàyyi rek rapport entre état ak diine mu nekk rapport boo xam ne dañ koy bàyyi ci tempérament ki jiite réew mi wala ay sentiment bu ko kii neexee mu mu ne mooy kilifa diine jël alal jox ko bu ko kii neexul mu tëb ko loolu sax va day ça dafa compliqué ni diine ji doxee ak état bi man d'accord mu ci hmm. waaw léegi li nga bëgg mu leer ci bopp ñëpp lan la li bëgg mu leer ci bopp nit ñi mooy eh, il est temps même bu fekkee dañ ne nous sommes lay état et lay Sénégal yi moom du ñu ay lay sénégal yi ay jullit lañ wala ay chrétien kon li ñu war a def mooy ñu ñeme ko ñu ñu firi laïcité bi selon ni mu dëppoo ak suñu réalité ñun parce que bu ñu waxee dëgg dëgg dëgg waxee dëgg laïcité bi ci tur rek la mais ci jëflaate bi amul laïcité kon nag dañ ko formaliser dañ ko formaliser def ko ci ay loi yóbbu ko assemblée ñu wote ko lu état bi ye lu lu diine ji yelloo ñu jox ko ko su boobaa état bi mën naa def sax ci kër diine lu ëpp la mu fay def te kenn du ko ci gërëm ndax devoir lay doon parce que man li ma gëm mooy dem Touba dem Tivaouane dem Ndiassane demande sociale Sénégalais yi ñoo soxlaa dem Touba ñoo soxlaa dem Tivaouane ñoo soxlaa dem Ndiassane kon état bi daf leen a war a fekk foofu ñu dem lañ fa mënul defal seen bopp mu defal leen Khadija professeur di euh, remercier waat suñu invité delloo di ko nuyu par rapport ak éléments yi ñu jàllale ñun ñaawlu wuñu lu diine bi bokkee ci politique parce que quand même histoire wan nañu ne que diine ak politique yàgg nañoo ànd yàgg nañu gis ay taxawaayu kilifa diine ci euh, arène politique bi ak yenn décision ci wàllum politique bu waree am mais xëñ na li ñuy ñaawlu moom mooy raison yi nga xam ne imam yi nekk ci éléments yi euh, soulevé nañ ko comme étant li war a tax nit ñi ñu jëlee imam yi nga nekk ci Dalifort wala imam bi nga xam ne moom euh, élément bu ñu mujj xaalis bi ñu dugal ci jàkka ji wala xaalis bi ñu leen jox moom moo tax ñu ne ah dem leen ngeen votel président Macky Sall. léegi tey euh, fii imam euh, la nga yeggali imam sax dafa ni na soosaan. na soosaat voilà ñu ñëwaat ci parole yooyu itam loolu dama si doon ñëw professeur merci nga ma anticiper si hmm. parole yi nga xam ne imam yi koy utiliser parce que maam qu'on m'excuse du terme mais je trouve quand même assez ordurier le langage que l'imam a utilisé ba ma ko ah, déggee pour la première fois je moo tax ma ne je m'excuse d'avance parce que ba ma ko déggee quand même dama ne ay kàddu yi ay kàddu mbedd la nekkul kàddu boo xam ne imam war na ko utiliser rawatina ci ci ci bërëb boo xam ne dañ fay hmm. jaamoo yàlla bu demee une semaine wala deux semaines en arrière gis nañ géej waaye li fa xew hmm. ñu war a benn jàkk ay ay tëggkat tama ñoo fa ak lu nekk ba imam euh, Dramé woon ci plateau ba xolam waroon naroon fee génn donc argument yi ñuy indi en fait xaalis tout le temps l'argent tout le temps l'argent moom mooy waxal que ni euh, boo naree dem sax ba naan da ngay gis ay jeunes yoo xam ne dañ naan gëmatuñu wala amatuñu foi ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite sur le plan religieux parce que bu fekkee ni ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu war a montrer le droit chemin ñoom ñooy dem ñoom ñooy ci yoon bi si je peux m'exprimer ainsi ndax xaalis laa vraiment il y a un problème. doyen Daouda Diop loo si bëgg wax. waaw man damay remercier imam ci li mu wax parce que pour man kàddu yi dafa rafet. te ni mu rafetee noonu la imam yëpp war taxawee. maanaam imam day tëddee njaaxanaay xam ne ñëpp fi nekk. doo faral kenn. bo loolu moom su ko imam yi defee respect bi ñu respecté diine gi day yokk mais comme ni nga Khadija waxee ngeen baal ma ci imam bu naan sosalaat ma c'est un terme vulgaire. que ñu wax ni sosaat waaw sosalaat xam nga loolu dafa vulgaire. te man waaw te man imam waawu vulgaire mukk ci àddina parce que imaam su vulgaire rek mu nga yàq diine te diine kenn waru ko yàq parce que unité diine dafa sax baax ci àddina parce que c'est la paix c'est la non violence ak construction bu baax de l'avenir ba nga xam ne vraiment je regrette que Moustapha Gueye soit apparu et dit ça et je lui lance un appel. du moom moo wax soo saat bi de Moussa Gueye xam naa ko xam naa li mu wax ni euh, président li mu def propagande bi mu def parce que loolu mooy propagande politique. yooyu en général ci pays comme ay pays comme ñu naan wax les pays soviétiques ci ngay fekk ay nit ñuy wax loolu parce que dañu dem ci régime bi mais Moustapha Gueye boobu xam-xam la boobu dëgg-dëgg la mais moom du pour man xawuma bett tuuti parce que maa ngi fàttaliku yàgg na de ay 1980 am na benn film bu tuddoon Haamaan hmm. buñ daan teg ci télévision yi hmm. mu moom moo ko daan traduire mais am na jamono boo xam ne dafa interpréter film bi na mu ko neexee parce que loolu moom méngoo woon ak internet congrès des imams aussi bi fi Abdou Diouf taxawoon moo doon secrétaire général yooyu yëpp dafa wane ni moom d'ailleurs imam yi waruñu ko sax teg comme imaam dañu naan ko taxaw pa paasu imam ba xam mënuñu ko woowee leneen lu dul imam mais du imam parce que imam nii laa ko gisee ñoo xam ni dañu am benn dindi ba suñu waxee day jiite ah, ci jàkkaam waaw day jiite ci jàkkaam ba pare di wax waxu yàlla di xelal nit ñi ci yàlla li leen ku nekk na nekk ci jàmm bu dëkk bi tàkk bu dëkk bi def lii doxalu sax ngay ngañi nit danga naan woote naa bu dëkk bi tàkk bu dëkk bi ku nekk na dem wooteel ka neex su ngoon sa jotee ñun ñëpp ñu jubóo yoo xam ne ñoo bokk dëkk bi man noonu laa gisee imam Ajara man benn préoccupation laa on parle euh, de religion et parce que ñëpp xam nañ ne que ni euh, religion ak politique tout le temps day am ay polémique ci loolu moom depuis la c'est depuis la nuit des temps mais Sénégal euh, man je veux savoir ci ban moment lañ mën a expliquer Euh, intérêt bi nga xamante ni euh, kii religieux yi am nañ ko ci ci ci wàllum ci wàllum politique bëgg naa ñu expliquer ma ci ban moment le le le intérêt boobu suscité wu. en même temps am na ay paroles yoo xamante ni day souvent day génn ci cadre ci ci euh, ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy def politique. en général da ngay gis que ni ku ku bëgg def politique sax da dem ci kër religieux yi pour mën a am voix wala pour mën a am pour inciter nit ñi ñu ñu votel la ñu gis ko ci kaaw Ousmane Sonko également bi mu génnee di def déclaration ak livre bi mu ubbi bi mu commencé woon bind ba Cheikh Yérim Sow laajoon ko ni ko ndax yow ibaadu nga ci ban kii nga bokk Cheikh Yérim Seck asafullah la <laughs> ko yow ci ban secte nga ci ban kii nga bokk ndax ibaadu rahmaan nga donc mu mel ak religieux yi ñu war a duggee ci ci politique donc loolu bu ñu mënoon euh, éclaircir ci côté boobu dina. Nina am na loo si bëgg wax. waaw ah, nuyu leen nuyu naataango yi ma bokkal plateau bi euh, nuyu spectateur yi li ñuy yokk rek xëy na li ñuy wax imam daam ci man li ma bëgg a intervenir parce que nee na xëy na il faut que ñu état bi moo mën a jàppale ñu formaliser ko mais est-ce que formaliser boobu imam gisu leen ne il faut que yéen seen biir déjà mm. ngeen organiser wu si seen biir déjà ngeen organiser wu balaa état bi di si mën a dugal loxoom ndax bu si état bi dugalee loxoom est-ce que du nekk loo xamante ne tamit dana indi loo xam ne daañu gis euh, situation bu boo xamante ne xaaruñu ko woon walla li nekk euh, seen attente ci loolu ak li ngeen ci doon euh, séentu du ngeen ko ci gis est-ce que réellement état moo war sax jël loolu formaliser ko hmm. parce que dama foog ni yéen war ngeen am pouvoir boo xamante ne war na tax ba bu ngeen nee état taxawee nii mu taxawee nii bu ngeen nee euh, société bi population bi ni taxawee leen ne ñu taxawee na parce que yéen yéen a war a am notoriété boobu ba nga xamante ne yéen ñi yor diine ji ku nekk ci diggante bi ngeen nekk mën a arbitrer est-ce que loolu bu ci état dugalee loxoom du am leneen lu mu indi. imaam Mouhamed Lamine Dramé. waaw professeur di nuyu imaam Dam ñëw bi mu ñëw fii di jàngaat si moom rek woor ma bi nga xam ne <laughs> jox na ko El Hadj Moustapha. parce que moom du nangu mukk ku wax dara ci El Hadj Moustapha parce que xëy na li mu ko jàngal moo tax. mais boo xoolee li xew euh, ci imaam yi ci élection yi jar na taxaw seetluwaat bu ñu waxantee dëgg. Euh, boo demee si le prince Machiavel dafay wax ni ki yor nguur dafay soxla diine. maanaam buy dem si diine demul ci diine pour dëgëral diine mais day jëfandikoo diine day jëfandikoo nitu diine yi pour dëgëral nguuram léegi loolu nag dafa fes fi ñu toll nii xam nga imaam ci lépp la war a wax mais wartu far fenn rek la war a far mooy fi yàlla far ak fi yonent bi far mais imaam boo xam ne kàddum li tax mu yëkkati ko mooy jox nañ ma benn million jox nañ ma ñaari million jox nañ ma 4 million léegi damay soo soosaat mais kooku dafa waroon summi mbubbam imaamam ba wax loolu ba pare door koo solaat en toute sincérité ah. waaw bon beneen bi aussi euh, si wàllu transhumance dañ koy wax ci nitu politique yi mais dafa am ci nitu diine yi hmm. ñun fekk suñu dund bu gàtt bii fekkee nañ fi imaam yoo xam ne PS la ñu woon PS daanu ñu nekk PDS PDS daanu ñu nekk tey ci Macky Sall kon transhumance bi ñuy naqarlu du ci homme politique yi kese la nekk dafa nekk ci nitu diine yi nekk ci imaam yi. transhumance religieux. absolument loolu bu ñuy wax suñu dëgg dëgg te yàlla tax rek te bu te bu kii fi nekk daan woon tamit ñu toxuwaat donc loolu loolu y' problème man damaa jàpp ne nitu diine moom moo war a njëkk a wax ci politique. mais dafa war a orienter askan wi. gën a dëgëral valeur yi. imam bii nga xam ne moo dëkk Mali ñu wane ko mais kooku jàngal na ñëpp man bi ma gisee muy mu compter cinquante million di ko delloo dama ne ñoom ñoom imam yi nii gënuñoo bëgg imam bi xaalis mais imam bi dafa gore dafa bàyyi xel diggante moom ak yàllaam mais professeur xaalis ñëpp ko soxla ku leen a bëgguma million waxul dëgg muy imam bi muy njiitu réew mi ñëpp ci bokk yam ñëpp bëgg xaalis waaye nag dafa am xaalis boo xamante ne ni corruption la parce que naa la jox xaalis pour nga waxal ma naa la jox xaalis pour nga indil ma mbooloo mi naa la jox xaalis pour jënd nit ñi loolu kenn mënu ko wutal beneen tur ci àddina bu dul corruption. imaam yi daal corruption da leen dugg. ñëpp kuy def loolu kiy génne xaalis di jënd nit di jënd carte nit di fexe jouer ci sentiment wu nit jaar ko ci xaalis ba mu wate la yaa ngi def corruption. Mhm. loolu yaa ngi def riche te waxoon nañ fii ne yonent bi nee na sallallahu sallam yàlla rëbb na kii ger ak kami yooyu ay réalité la léegi nag fi ñu toll nii euh, dafa am loo xamante ni tey àddina bi dafa toll bëggatuñu dara sacré bëggatuñu imaam ñu ne imaam bi am na solo dañu bëgg ñu ne imaam bi ñëpp a yem te ci bunt yi lañ ko mën a jaar bu ñu demee tey ba ci internet bi imaam bi su waxee quatre-vingt pour cent ñi koy ñi koy topp di ko di ko xool dañ koy saaga dañ koy xas di ko jàngal moom imaam nan la war a toogee bu boobaa imaam yi war nañu xoolaat seen toogin bon fii fii lii yëpp nag bokk na si li ko waral ñaari mbir benn mooy erreur yu mel ni professeur doo ko gis ci église bi. Hmm. Hmm. église bi doo gis ñu def erreur yu mel nii. c'est parce que dañ leen former defal leen seen formation ba ñu dëgër ñu xam lan la ñuy wax ak kañ la ñuy wax ak kan moo koy wax. Hmm. diine ji amut loolu. léegi su ko defee nag ki nga xam ne dafa am beneen yéene am bëgg-bëggu boppam da leen di jëfandikoo comme ni mu ko bëggee. Hmm, donc loolu laa bëggoon a wax mais li li li li imam soos soosaat bi wax ak li sunu maam El Hadj Moussa wax loolu man dama jàpp na xaalis moo tax mais du ngir yàlla àndoo si daal non non non euh, imam euh, euh, dégg nga ñëpp daanaka yi dafa dafa daje tey xaalis ay kàddu soosaat gis nañ li xewoon way lan nga si wax waa li wax mooy ma li war a wax lañ wax parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ lii xew na nëbbul kenn léegi kenn ku ne am na nu mu ko yëgee mu wax li mu xalaat li ma dul nangu kay mooy man mu wuutu leen waxal leen li ñu bëgg a wax parce que man loolu du sama rôle sama rôle mooy man imaam laa am na nu ma dégg imaama am na mbooloo moom ma bokk am na nu ñu dégg imaama suñu ma laajee loolu ma wax leen mais xale yi li ñu wax nii euh, ma ci wax parce que wax kenn ku ne li mu wax loolu la yëg te mun munuma ma ko weddi ndax li ci ëpp dëgg la léegi euh, tey euh, kii dafa laaj ajara nee na tey euh, ñi nga xam nitu diine yi tey ñoom ban moment kañ la ñuy jëflanteeg dëgg-dëgg politique ndax élection rek la wala saa su ne la ñoom ñi ngi jëflanteeg ñoom voilà loolu question bu ama am solo la mais tontu ko itam dafa laaj dal xam nga problème bi ñu am yëpp li ko jur mooy dañoo nekkoon réew moo xam ne dañoo coloniser di ñu jàngal pour ñu nangu colonisation boobu formé ci loolu formé ñu ci lool tubaab yi nekk fi di xool li leen fi mën a dëgëral ñu dem ba ne yee ñoo suñu bopp te léegi bi ñu moomee suñu bopp fagaruwaatuñu defaraatuñu defar nit ku moom boppam parce que programme bi formé ay jaam ñu nangoo nekk jaam bokkul ak programme bi formé gor su fekkoon ne ñuy sérieux lañ ñun ñëpp muy kilifa diine yi muy politique yi su fekkoon ñu série lañ bi nga xamee ne Sénégal am na indépendance dañuy toogaat ñu xool ni kat Sénégal réew muñ colonisé woon la léegi am na indépendance loolu lan lay tekki ak ban sénégalais lañ bëgg léegi est-ce que sénégalais biñ tubaab bi continué di former moom aara mën naa nekk mën naa nekk ci Sénégal bi ñu soxla léegi wala dañoo war a formaat yeneen sénégalais su boobaa suñ defoon loolu danañ xam diine ji ban rapport la war a am ak état bi ñu formaliser ko parce que euh, li euh, Mouhamed Lamine dëgg wax dëgg la mooy église bi du ñu comporte waa ni ñu comporte ñun parce que église bi rapport am ak état était formel mm-hmm. depuis colon yi attends euh, faut pas ngeen def erreur boobu si parce que ñoom dañu seen rapport bi était formel donc dañu amoon programme xam état ñu ñu ñu accepté leen ñu for ñu formaliser seen liggéey ak seen rapport. mais surtout ñoom tamit ñu jàng. ñu yi jàng. mais day julli itam jàng nañ. dañu jàngul tubaab. ah jàng nañ. imaam yu jàng nañ. mais imaam yu si bëri nag alxuraan la ñu jàng rek mais jànguñu nan la ñuy yoree réew jànguñu koom. Ah, comme yow nii par exemple yore nañu ah. réew avant di fi ñëw. oh non avant nga wax mais léegi nii la ñuy wax. waaw mais ba léegi ku a yor kër mën nga yor yaay wax caaxaan la rek. Hmm. ku mën a yor kër rek mën nga imaam ñi kilifa diine yi fi nekk li ñu yor moo gën a for état foofu yooyu ay wax la problème bi mooy ñàkk a toog waxtaane réew mi léegi dañuy coloniser woon léegi ñoo moom suñu bopp nan lañ koy doxale léegi léegi euh, lu leer la mais loolu defuñu ko moom mooy audit bi ñu war a wax ah. ni colonisation léegi euh, imaam Mohamed Lamine Dramé lu wax tamit euh, ànd nga si mais dafa am imaam yoo xam ne dañuy transhumé tamit dañuy loolu dëgg imaam PS imaam yi ay sénégalais lañ ah. ci boppam moo bëgg lu yomb ñun ñëpp la noo bëgg lu yomb waaw léegi euh, imam tey euh, euh, maanaam boo doon tënk mbir mi tey ban ban message nga bëgg mu leer si bopp ñëw message bi ma bëgg mu leer si bopp nit ñi mooy imam yi ay nit lañ imam yi ay Sénégal rek dëgg la imam lañ gën a yaakaare mbaax ndax ci moom lañ ko séntu waaye man naa am safaan aussi ñu jàpp ne itam nii ñu gisee nii imam yi bari dëkk fu ne ñu wax ko fa am na yeneen groupe imam yu wul noonu. dëgg la war nañ leen a xam ñoom itam xam ndax ñoom ni ñuy doxale wuti naa lu tax mu wuteeg lii on l'a pas fait loolu rek loolu mooy problème donc nañu may imam yi ñu nekk ay sénégalais comme ni ñuy toléré politique yi ñuy juub ak di def lu baax imaam yi ay déet lañ mën nañoo juum mën nañu def lu baax. daa imaam daam bu ñu defee loolu tamit affaire bi day xaw a xajam parce que imaam euh, fi ñu koy yaakaar. moo ëpp fi ñuy xaar yaakaare sénégalais bi ngay wax nii rek. waa mais du imam rek lañ yaakaar fu fu fu fu fu mu daanu fu mu daanu du imam donc même politique yi li ñu li fi ñu leen séntu woon di fi ñu nekk nii. parce que politique koo xam ne da ngaa dem ba prétendre mën ngaa jiite am réew. am na la noo war a waxe am na noo war a defee mais dañ ñoo bett. mais tey bu ñu waxee politicien rek ñëpp dañuy xalaat koo xam. dafay naxaatee léegi loolu gannaaw gi la gannaaw gi la. bi politicien yi wane na nekkuñ fa ñu leen séntu woon lañ imaam itam bu ñu continuer comme ça noonu la ñu mel. ah ah loolu message bu leen naan Imaam lan lan ngay jeexale bon man dama tàmbale guma woon sax bay jeexal ah parce que man li ma bëggoon wax mooy xam ne yeneen imaam am na fi ñu bokkul ak ñi ay doxal ah, imaam daam wax nga loolu léegi nag non non waxuma ko parce que dañ ñun dañ dafa am beneen association dafa am ñaari association nationale yu nekk ci dëkk association nationale boo xam ne mi ngi tudd association des imams et oulémas suñu oustaz Alaaji Moustapha Gueye moo ko jiite yàgg na koo jiite nag yàgg na koo jiite parce que moo ko indépendance ñoom Hmm. daanaka association moom indépendant. moom ñaata nii mu koy jiite. macha allah depuis Alaaji Modou eh, rahmatullahi alayhi Alaaji Modou moom moo ko jiite yaakaar naa parce que man mosuma cee bok am beneen association boo xam ne mi ngi tudd Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. mooy bi nga jiite yow. boobu itam maa man ca bok boobu am na beneen doxalin bi ci li ci gën a fës mooy bi mu mujjee def nii. mooy bi élection yi jublu see six mois. Mm-hmm. dañoo gis ne candidat yi. à chaque fois bu campagne jotee ay revendication yu jëm ci suñu àdduna rek lañ def mm-hmm. mais revendication yu jëm ci diine kenn du leen ko wax mm-hmm. ñu ne ren moom bu soobee yàlla danañ tënk ay tom yoo xam ne dañuy wutu jullit yi gaaral ko candidat pour que ku ci nekk président ëllëg nga bàyyi ko xel muy juróom-ñaari tom tomb bu njëkk bi mooy formaliser rapport état diine il faut ñu formaliser ko ba ba ñu xam mooy kilifa diine ak kilifa diine mooy yelloo lan. lu ñu jox lu état bi joxati diine yu yëg ko xam man ko contrôler ñaareel mooy créer lu ñu tuddee état généraux gan baal ba sax état généraux mi ngi lu ñu tuddee euh, conseil supérieur islamique c'est-à-dire diine ji am kaddu parce que Sénégal këru diine yi ñoo am kilifa mais diine ji kenn yilifu ko. te loolu tax na ku mu neex wax lu la neex ci lislaam kon war nañoo amal lislaam bi. kilifa. mais loolu imaam Balma mooy laaju nina bi tey est-ce que euh, du yéen imaam yi yaa war a organiser. du imaam kilifa diine la wow du imaam yi li mu wax dëgg la mais état bi bëgg ko mën nañu ci jàppale état bi wax ne mais suma sañoon ngeen organiser wu ma am interlocuteur valable mën nañu jàppale ci ñu nekk benn. mais yéen tam mun ngeen ko defal se mën nañ ko def ñun ñoo ko war a def ñun ko war a def mais revendication en tout cas bi ci topp mooy euh, li ñuy tuddee code de la famille bi nga xam ne moo fi nekk. te sëriñ si mës koo bañ depuis 72 mosuñ ko nangu am na beneen code boo xam ne Sirkop moo ko def candidat bi wax ndax bu bu yëgee dana nangu ñu discuter ko bi ci topp mooy enseignement bi ñu xoolaat parce que ah, waxuma enseignement daara dong enseignement bi yëpp. parce que programme bi ñu yor nii mooy bi fi tubaab bi bàyyi woon te tubaab bi bi ñuy jàngal dañoo bëgg a jàngal pour ñu gëm ne nekk jaamal ñu gën a arrangé. kon bu ñu dee ba nekk ay gor dañoo war a jàng programme buy def nit gor kon nañ ko xoolaat suñ ko xoolaatee danañ ci dugal alkuraan ndax Sénégal yi ñoo bëgg seen doom yi jàng alxuraan te Sénégal ñooy fay impôt état bi tegul fenn fekk waajur wi bëgg doomu jàng tubaab mu tabaxal ko école fayal ko maître waajur bi doomam bëgg jàng alxuraan mu ne ko sama yoon nekku ci loolu boo waa foog ñu changer ah, constitution nag de parce que constitution moo ne ñun laïc lañ constitution day aay jàng alxuraan boo dee laïc boo dee laïc laïcité ku lool est-ce que yow yaa ko firee noonu laïcité il faut ko jàng lool. Euh, yow yaa ko jàng loolu yaa ko wax. c'est-à-dire que moom mooy nguur gi état bi. moom diine du ko xeex waaye nag moom diine du ko dooleel. loolu loolu yaa ko firi yow yow sa laïcité fan lañ firee laïcité bu foofu. Euh, amul ci constitution amul donc. constitution de kenn firiwu ko yow yaa ko firi. waaw non dama ne loolu mooy laïcité nañ ko firi na ne nañ ko firi na ne. yow nan mooy sa firi. firi bi mooy. Euh, état bi état lay mooy état boo xam ne du référé wu ci diine mais dana may képp ku dëkk ci dëkk bi mu dund diineem ni mu ko bëgg te loolu da caa bokk mu jàngal ko rek. waaw loolu loolu xam nga benn déggin la. waaw mais du dégginu laïcité française bi ñuy. appliqué ah, mais pourquoi français ñun ay sénégalais mais laïcité kàddu lan la. mais laïcité Angleterre bokk la bu France. de Angleterre amul laïcité. ah lu amuñu ko France ak ay. njooñam amuñu ko am Allemagne amuñu ko. ah non si Allemagne am na. Allemagne ko de. France dong ak ay. ñi mu ñi mu nootoon ñu am laïcité. non non non non bépp bépp état boo xam ne du référé wu ci diine pour pour gérer si euh, kii. Hmm, cité laïque la. waaw non dama ne si constitution laa wax. waaw wax wax wax man constitution laa wax. constitution bu Sénégal. Hmm. dafa am laïcité. Hmm. comme ni mu amee si bu France. te ñun bu France la ñuy appliqué. loolu laa non pourquoi ñu appliqué France. parce France la ñu nootoon. ah loolu la ñu war a loolu bu dee moom la ñu doon ñun war nekk ay sénégalais war ñu nekk ay français nag loolu lañu doon imam moom nga doon wax sànq ni que ñun suñu euh, ah, nooteel waaw donc kon revendication bu ñëwaat place mooy nañ nekk ay sénégalais ba ñu nekk ay français d'accord Abdou Diouf mos na wax lu mel na li mu wax ni laïcité ce n'est pas faram ki mooy permettre nit ñi ñu réaliser seen religion comme ni ñu ko entendre c'est-à-dire l'état mais Abdou Diouf l'a défini selon son tempérament c'est-à-dire que laïcité bu fekkee dañ ko defee noonu kon lislaam dafay ñëw féete kaw lépp parce que lislaam dafa ni mu gisee si wàllu koom ne nañ ko tëralee nii laïcité dafay toogee nii ni mu gisee si wàllu code de la famille bi mu wax kon laïcité dafay toogee nii ni mu gisee si wàllum jigéen yi wàllum sàngara yëpp léegi ma ma posé leen question bi mm. fi France yi nekkee ban état lañ yoroon état français. lay wala waaw. mais pourtant français yi nangu woon nañ ñu réglé suñu bopp suñu sëy nangu woon nañ ñu réglé bopp suñu mariage suñu sëy suñ suñ ndono. Euh, mais loolu am na ba léegi de wala. non non amul amul non amul tribunal duñ la. du am xarit code de la famille day aaye nga fase sa jabar soo fase sa jabar kenn du kenn du ko jàppee fase loolu code de la famille loolu du du la non c'est affaire ndono ak yooyu laa wax. tey ci ndono bi même ci ndono bi fii nii boo boo amee benn famille boo xam ne seen waajur dafa faatu. kenn ci ñoom bu nangul ñu appelé ko atte ah, ah, ko ci ci ci miraas ci lislaam duñ miraas mais bu ñëpp nangoo mun nañ ko miraas ah, d'accord waaw donc donc boobu permettre nañ ko euh, léegi imam tey euh, message bi nga bëgg jeexale lan la waaw message bi moo jël comme léegi <laughs> dafa nangoo ma àggale ah mun nga yeggale après jeexal waaw bon c'est pas mhm. de façon euh, bi ci mujj mooy kon dugal njàng mi ñu xoolaat ko njàng mi bi ci topp mooy jàngal dugal njàngum diine ci école publique bi maître Wade wax dëgg yàlla defoon na ci pas mais mu bañ a nekk facultatif parce que ñun ñoo wax ni Sénégal seen problème problème jikko la te ñëpp xam nañ ne diine ci liy jafar jikko kon dañu war a dugal njàngalem diine ci école bi. bi ci topp. mooy ñu renforcer état de droit te mooy wax dëgg yàlla pouvoir yi ñu xam ci wàllu politique science politique ñu séparé ko bi mujj mooy ñu jàppale nit ñi ci dund dëkk bi métti na ñu lekk naan jàng faju macha allah ah, loolu lañ def ci benn texte. aywa texte boobu euh, imaam tey euh, ku si bëgg jot euh, mun na see ñun man mm, mi ngi internet. mais ñu ngi koy jox kàndaay. macha allah imaam looy jeexale xanaa di di leen sant. ah macha sant mbokk yi ma fi teewale. baal ma nag ci tempérament bi ma waxee. man ah, magatum njaay ak njaayeen moom yaram tànge. <laughs> saa yoo waaye wax dëgg yàlla maa ngi rafetlu émission bi. Euh, di leen encouragé bu baax a baax a baax. di ñaan kër gi itam yàlla suqali ko. parce que def ay effort pour jël ñu. jërëjëf euh, Imaam euh, Dame Ndiaye moom fii la bokk ci kër gi vraiment ñu xamee ko xam nga ñu mel ñoom imaam yi ñee bi ñu leen war a ñee. mooy tey imam bon maa maa ngi wax nii rek mais ku mel ni yow tey su génnee àdduna li ñuy wax rek mooy si diine ak mbaax la ne woon nga boobu rek ñu féetale ko doomu aadama. loolu rek euh, vraiment daal. ñun ñii tey xam nga ñun ñun sàggante lañ gën a ne mais ñoom imaam ñi dañu am solo góorgóorlu ñun ñëppay ah. <laughs> xam nga loolu bi ñu gën a nekk xale laa xalaat ndax dafa amoon ndeysaan xam nga ko bu baax euh, Ahmed Didat ndeysaan bu mu génnee àdduna sud africain boobu ñëpp dañ ne woon ah moom de àddunaam yëpp daf ko yëngu woon si fexe ba maanaam yàlla jàppale yàlla leen yàlla aywa jërëjëf Ndiaye jërëjëf euh, maam Cheikh Mbacke moom moo jiite AIS ñoom Euh, jeudi bii alxames 21 février sax bu soobee yàlla ñoom sañu def seen deuxième colloque annuel euh, daaw defoon nañ ko yegg si woon na fii ren ñu ñëwaat si citoyenneté et co coexistence pacifique maam Cheikh Mbacke ñu lay nuyu di la dalal la ziar euh, tey colloque bi thème bi lan la wund ah ndax élection yi moom moo tax ngeen am thème bu mel nii. waaw ah, jërëjëf Tunkara xanaa di jaajëfal baax oustaz Dame Ndiaye wax dëgg yàlla waxtaan wi fi waxtaan am na solo trop. bëggoon na nag participer ndax wax dëgg yàlla ku teew teewal diine ñuy waxtaan ci imaam yi pare joxu leen ko parole loolu tamit euh, war maa bàyyi nag ma ma wax ci imaam yii nga xam ne euh, vraiment euh, am na lu ñu wane. donc bala may agsi loolu faw ma sànni ci tuuti mooy li may waxaat mooy ñun ñoo sàggan ndax imaam dañu ko tànnloo te ñun ñoo tànnatul ay imaam imaam dañ ko war a tànn premièrement ci xam-xam hmm. xam-xam bu jàllee ñu tànn ko ci maandute al adl bu loolu jàll ñu tànn ko ci ragal yàlla mais loolu amatul ci réew mi Sénégal donc boo xoolee jàkk yi nekk ci biir réew mi yëpp wala boog rawatina ndakaar gi ñu nekk pànkal nekkal imaam bu pànk rek mën a wax xaw a di rukk ci suuf mooy xaw a xaw a sa lambiñ xaw a dëgër tuuti suuf bu ko defee gars yi ragal la daal lay dox jàkk ji loolu nag moo wane lii am ni tey aywa waaw loolu moo ko wane kon nag loolu damay wax ne senegal yi ñu ngi ci góorgóorlu jullit ñi fu ñu mën a nekk nañu di tànn imaam yi ni lislaam waxee ne surut imaam ni la dem ñu tànn ko noonu bu ñu ko defee rek yàlla mën na ñëw dimbali ba lii am nii du am du am allah. léegi euh, maam Cheikh Mbacke gis nañ ne euh, ren colloque bi citoyenneté ak coexistence euh, pacifique ba pare gis nañ nii da ngeen di delloo. Mhm. njukkal ñoo xam ne dañoo waaye dawlu ñu koy ku mel ni. Euh, El Hadj Sidi Lamine Niass. Mhm. Euh, Serigne Ahmed Bachir Kunta. Mhm. Soxna Bali Mbacke Maymuna. Mhm. El Hadj Maam Bun Mohamed Kunta. ñooñu ñëpp jërëjëf Tounkara bi nga laaj léegi lu tax ñu tànn thème bi suñu deuxième édition colloque AIS sur la citoyenneté et la coexistence pacifique euh, lu tax ñu tànn ko mooy élection yi nga xam ne ci lañ nekk dëgmal ko incha allah rabbi fii ak ay quelques jours ñu nekk ca. Euh, ñoo xool thème bi ñoo xool waxtu wi dàkk ko ci ngir bëgg message bi jàll nii politiciens yi jógee di campagne ngir ñu jox leen réew mi te réew mi moo ëmb diine ji réew bu amul jàmm diine ji mënut am jàmm te jii Sénégal bu amul jàmm kenn mënu fay wasifa kenn mënu fay jàng xasida kenn mënu fay def lenn ku wedd nga laaj Yaman wala nga laaj Irak wala nga laaj feneen jàkka yi sax nit ñi bu ñu fa duggee dañuy tiit ngir jàppal ne attentat suicide mën na am léegi donc kon faw ñu saytu jàmmi réew ki wax ne dañoo war a yore réew mi war nañoo xam bu baax a baax mooy kan war nañ ko rawatina occasion bi ñëw ñu war koo tànnaat donc war nañoo sénégalais war nañoo xam kooku kan la war nañoo xam bu baax a baax ay jikkoom war nañoo xam programme war nañoo xam léppam ndax sinon mën naa yóbbu réew mi ci kaawo donc nag loolu ngir loolu moo tax bi colloque bi jub see ren mu coïncider ak weeru électoral ñu ne kon nañ tànn tem yoo xam ne sénégal yi dañ ci gis seen bopp ñun tamit danañ ci mën a jàllale suñu message ba nga xam ne bu politiciens yi di wax ci wàllu àdduna ngir jiite leen ñun ñu wax ak wàllu maanaam xol yi ñoom xel yi lañu ñuy waxal actuellement nii mais ñun xol yi lañ bëgg waxal xol yi wax ak ñoom moo tax ñu nekkoon kon insha allahu ren thème bi nañ ko jël c'est la citoyenneté citoyenneté mooy nit ki bëgg sa réew almuwaatana mooy bëgg sa réew bëgg sa réew nag bu fekkee dañoo ñun ñëpp dañoo wax dañoo bëgg suñu réew am ko jékki-jékki jóge ci làng ne li ngeen gën a bëgg jox leen ma ko kooku nag bu ñuy xool bon citoyen wala boog bu ñuy xool ku ku gën a tegu ci yoon kooku moom la moom la ko war a xool ci moom. Imam Mohamed Lamine Dramé moom la ñu xool déedéet ku mu koy may mu tudd màggale kooku la war a xool bu baax a baax mooy kan. donc kon kooku bu ñu ko xoolee yaakaar naa bu boobaa dana mën a xam ne kii kii lan la moo tax ñu tànn la citoyenneté mais coexistence pacifique bi nga wax léegi boobu tamit dafa nekkaat lu am solo xëy na bee bon citoyen lañu tànn pour jox ko réew mi wala boog xamal électeur bi. surtout maanaam nan la war a nekk ku bëgg réewam ba kenn du ko tàlloo kenn du ko xarloo kenn du ko delloo waaye coexistence pacifique bi nga xam ne euh, euh, fan yi rek euh, xëy na xëy na xëy na ak su lañ ci waaye dund ci jàmm ak salaam nga xam ne dañoo wax réew mi Sénégal muy musulman yi ak chrétien yi ñu dund jàmm ak salaam waaye dem nañ ba ci biir musulman yi seen biir actuellement rawatina weelu weer wi ñu toll nga xam ne élection lañ toll tey jii am na ay audio ak ay wax yoo xam ne wala yeesu billahi taala mi ngi circulé ci réseaux sociaux yi te dara warul ko lu waxtu yu ñu toll muy waxtu campagne ñoo xam ñu ngi ko jëmale ci wàllu euh, euh, maanaam religion wàllu tarixa te loolu liggéeyu AIS AIS bi mu ne bërëb jug li mu njëkk def mooy dajale maanaam confrérie bi murit xaadir tijaan ñu ànd nekk benn su mag suñ kilifa diine yi digal ñu ko donc kon duñ ñëw ba ci weeru électoral weeru garaw ñu tànnoon thème bi gis nga temps ay Chine mi lañu tànn coexistence pacifique fan yàlla dogal ñun bañ koy wax sax dañoo xalaatoon ne euh, jàmm mën naa jàmm mën naa am wala ay am ci réew mi ba musulman yi ak ñeneen a ngeen du jax jaxasoo waaye xalaatuñu woon ne ci biir tarixa yi seen biir dana am ay message jóg ak ay kàddu jóg wala yas billahi taala donc na kon dafa mel ne sànni wi ñu sànni woon ñu ngi koy jam loolu nag lañ bëgg insha allahu rabbi fa yéene ko k ba nga xam nit ñi dana mën a gën a xam bu baax baax fi ñu teg seen tànk Imam Mohamed Lamine Dramé waaw di nuyu waaye xam nga professeur euh, man sànq ci bëccëg maa ngi ciy wax ak samay xarit ma ne leen man vraiment dégg naa ay kàddu yoo xam ne ci ñu koy jàllale ci réseau sociaux yi neexuma dara si diggante ay murit ay tijaan tijaan yi kii lañ faral murit yi kooku la ñu faral wax dëgg yàlla loolu nañ ko teg ci suuf amul benn njëriñ parce que loolu du bégloo Cheikh Ahmadou Bamba du bégloo Sidil Hadj Malick du bégloo menn mag dégg nga lii affaire politique la ñi nga xam ne ñooy xëccoo réew mi amut kenn ci ñoom koo xam ne daf ne su ma gañee damay doxal charia amu fi amul kenn ci ñoom koo xam ne daf ne su ma gañee réew mi damay jël xilaasu zahab wala ma jël masaalikul jinaan def ko mu nekk lu ñuy jàngale ci école yeeg yooyu amu ci donc si wàllu politique la ñu nekk léegi lii nga xam ne moo xew euh, naturellement mbooloo moo gis ñuy dem dina am ñoo xam ne dañu am xel seen xel dafa set dafa sell boroom xel yu sell yooyu ñoom seen kàddu moo war a jóg mais ñi nga xam ne ay fanatique lañu dégg nga ñooñu bu ñu leen bàyyee ñuy wax dañuy taal dañuy dañuy dëgg la sax am nañ yaakaar ne du yegg fenn fi mais kàddu yii di jib jaaduwul ci diggante musulman yi ak chrétiens yi sax rafetu fa rawatina nag ñoo xam ne ñooy askanoo ci benn école ñu leen di tuddee ay soufi rawatina ñu bokk benn famille ci wàllu dret parce que Seydi Hadji Malick ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ñoo bokk menn maam dégg nga benn bopp lañ kenn du ko xar tey boo jàppee ne mën ngaa wax ab tijaan lu ko naqari nga di murit wala murit bi wax tijaan bi lu ko naqari loolu yaa ngi bégloo Cheikh Ahmadou Bamba yaa ngi nax sa bopp donc nañu dem ci programme yi nañu dem ci programme yi te yii ñuy jël ay gis naa ay vidéo yoo xam ne professeur déclaration yoo xam ne daaw la woon dañ ko dekkalaat beesalaat ko commencé di ko di ko distribuer waat pour suqaliwaat fitna yow gis nga fi plateau bi ñu defoon fi jamono Bakkat ak Makka ji Cheikh Idriss Seck. Mhm. mais loolu dépassé nañ ko. ñun bi ñu ciy wax gis ne ñeneen ñu ngi koy bëgg a exploité ci wàllu politique lañ ne dootuñu ci wax parce que ñun diina moo nu tax jóg. du nu nangu ku jël xeexu diine di ko di ko di ko politiquer loolu dañ koo teg ci suuf. mais loolu gisaat naa audio yi ñu commencé waat di ko tas. dégg nga ñeneen jël yi benn déclaration boo xam ne benn xalifa moo ko defoon ñu ñu commencé waat di ko tas. loolu yëpp xam xam bu fitna la. Tidiane du ci gagné Mouride du ci gagné Sénégal du ci gagné te képp koo xam ne yaa ngi def loolu ne la wér na rëbbum yàlla rek nga ciy jëlee yal nañu yàlla musal. amiin euh, am Cheikh Mbacké kon euh, ziar bi le euh, conférence sax le 21 février la fii ci CICES léegi e message bi nga bëgg mu leer si bopp ñëpp lan la. waaw message su AIS e yaakaar naa ñëpp xam nañ ko mooy boole julli ñu boole tarixe yi ñëpp ànd nekk benn donc lii Lamine Darame wax léegi. Euh, manipulation la boo xam ne ñun xam nañ ci lu leer nañ ci audio yi nga xam ne commencé naa jóg nit ñi di ko romandaat ci suuf loolu manipulation politique la boo xam ne am na ci biir ñoo xam ne xëy na kandidaa be arrangé wu leen candidat bi arrangé wu leen mm-hmm. ñu ne nañ jug pour def ay audio pour diaboliser pour mbëkkante bu ko defee kee xëy na comme euh, bokku ca tarixe wala tarixe ba la bokk bu ko defee ñoo ñu xeex ko loolu nag ñun duñu leen ko may duñ ko may politiciens duñ ko may ñi koy def ndax ñun AES bi ñu jógee ni bërët di liggéey dafa am ay défis yu nekkoon suñu kanam mooy ñi jugoon di weddi mag ñi ne mag ñi li ñu fi indi baaxul wala nangam loolu ñooñu lañ jugoon pour jàmmaarloog ñoom waaye nag bu ñu demee ba nga xam ne ñun suñ biir ña ngay tamante ak di wax la ko sud noonu loolu duñ leen ko may mukk ba abadal abidina donc ñun bi ñu jotee audio yi lu ñu xew ci ci réew mi wala ci wàllu diine ñun lañu ko njëkk envoyé ndax ñun ñoo nekk réseaux sociaux ñoo donc ministère de moom ci jëmmi bopp ni nga xamee bi nga xamee ne ay aju jugoon na fi yoo xam moon naa taal réew mi moon naa taal ak daay di xas kilifa diine ak di def naka su noonu taxawaay bi ñu ci amoon AIS ba ministre de l'intérieur am woon jàppoon leen noonu la ñuy wax ministre de l'intérieur aju yi commencé jug nga xam ne nit mooy benn indi mooy wax mu leer naññi nga mën ko identifier xam fan la nekk mu wax loo xam ne wala yeesu billahi taala mën naa na bañ am wala yeesu billahi taala donc te ñun ñëpp dañoo dégg ma élection ne dana mu wax aju boo xam ne moom mi ko wax day tudd tur di tudd maanaam maanaam tarixa moo xam murid wala xaadir wala tijaan la loolu buñ bëggee mu dakk dañuy wax ministre de l'intérieur muy Aly Ngouille Ndiaye nañ fexe ba def enquête balaa élection yi jot ñooñu def audio yooyu ñu jël leen jàpp lañ tur ay suñu loolu la woote nañ jàpp ñooña tëj leen yar leen ba pare nag ñu proposé gis nga réew mi bu bëggee mu am jàmm maanaam gis nga whatsapp bii man waxoon naa ko ca gannaaw ca gannaaw avant avant élection ñëw ci jamono màgg laa ko wax nañ fexe ba yenn ci paramètre whatsapp yi nañ ko nañ nañ nañ ko nañ ko censuré wala nañ ko tëj man loolu laa te wallaahi mi ngi commencé feeñ ndax am na ci audio yoo xam ne am na ci audio yoo xam ne dañ ko whatsapp dañ ko waroon bloqué man loolaa wax waaye bu ma ko njëkk bind am na ñu ne sa àqi fam yem xamoo ko sa àq sa xamoo ko bay xam àqi moroom fan fan la commencé donc kon lañ proposé woon mooy bu fekkoon ne whatsapp bii euh, avant élection yi am na ay censure yu ñu ci defoon yoo xam ne kenn mënut a partagé audio ñu bloqué ko yaa ngi may dégg bu la neex mën ngaa waaye kenn mënut a partage ah, mais loolu moom mënut a ne moom waaw loolu jàpp naa ne bu ñu ko defoon li ndax Tunkar affaire ko ah, def nag ñi ngi wax fii ministre de l' intérieur audio nañ liggéey ak ñoom aywa fu ñu a nekk ñu jël leen ñu jël leen teg leen teg leen fi ñu war a teg. aywa maam Cheikh Mbacke euh, lan ngay tënkee mbir mi lan ngay jeexale. waa donc nag euh, euh, comme ni nga ko waxee léegi AIS dafa ñëw ci ñëw ci deuxième édition colloque AIS daaw ñu ngi ko defoon 3 mars ñu koy defaat incha allah jeudi le 21 février bi au CICES ñoo tànn weeru ñoo tànn lépp ngir bëgg a joxe suñu message comme ni ma ko waxee léegi incha allah ñu ngi ci woo mboole mbokk jullit yëpp candidat yi ni ko oustaz Dame Ndiaye waxe ni ñun def nañ lool candidat yi invité nañ conférence presse bi ñu def bërki démb 2STV ñëw nañ ba jël ko ñu ngi ne sant wax di leen gërëm joxoon nañ cinq points yoo xam ne ñu ko jëmale cinq catégories bu njëkk bi mooy les candidats war nañoo respecté bu fekkee démocratie lañ nekk war nañ ko respecté war nañoo ànd ak maanaam li ñu mën tuddee jikko yu rafet waruñoo woote violence waruñu ko xirtal seen i seen i militant hmm. ñaareel bi électeurs yi war nañoo naka noonu kenn bañ leen yóbbu ci maanaam maanaam maanaam violence waaye tamit kenn waru leen a guerre kenn warut a jënd seen i carte loolu waxoon nañu ko waaye ñu tànn nit tamit ci jikkoom ak ci lu mel doon naka nañ jéem a nekk ci élection transparence loolu waxoon nañ ko suñu suñu dénkaan élection yoo xam dañ ko organiser bañ a faral kenn bu résultat yi mën nañoo xam ne lu yàq réew mi seen loxo génnu ca ndax benn euh, am na ci ñoo xam ne jënd nañ leen ger nañ leen jënd nañ leen am na ñoo xam ne tamit euh, maanaam la ñuy wane fausse information lay doon am na ci loo xam ne jërtu wane lu yàq am pénc wala li ko rey loolu loolu jërtu wane donc ñu ne leen ñoom te paaka ñaari bor lañ nañ fexe ba fii def lu baax nañ fa nañ fa jaarale ba ci juróomi mooy sëriñ si sëriñ si nga xam ne dañuy dañoo dañoo jug nag uniquement ngir ne traite taxaw na traite seen taxaw na kon yor sa mbooloo ak sant woo mën a bokk di politique këru diine ga di ko politiquer wala ngay politiquer mag ma bay dem bi ba ko yóbbu ci ay gént ak di ko yóbbu ci di ko yóbbu ci ay asraar ak yoo xam ne yu ne ñaa ngi wax loolu dañuy wax ne na dakk loolu loolu loolu loolu lañu bëggoon wax léegi kon euh, ma jeexal loola waaw ah, ma jeexal tun rek <laughs> xam naa nag Oustaz Dame Ndiaye moom li nga ko may moom waaye nag suñ mag la suñ lépp la nañ ko dañ comprendre kon daal li may jeexalee Tunkara mooy insha allahu rabbi euh, candidat yi waxoon nañu ci conférence ne képp ku woote violence ci ci candidat yi te gis nañ commencé nañu gis violence as jour le vingt 21 février képp ku gis ne danga gën a woote violence wala nga jëm ci loo xam ne yaa ngi yàq réew mi as dana woote ñu sanctionné la donte se donte candidat yi ñeent ñi def nañ ko wala juróom yi def nañ ko wala kenn ko ci def as dana woote ne diw sàngam wala diw ak diw ak diw ñoom kat waruñu leen dénk réew ndax bu ñu leen dénk réew dinañ ko yóbbu ci góota kon loolu nag insha allah ñu ngi woo mbokk yëpp insha allah jeudi le 21 euh, wa tawfiq illa billahi di nuyu baax di ziyaare suñu xalifa généraux yu baax di ziyaare membre AES yëpp di leen en euh, direct mu ak fu mel ne Walfadjri ak yenn télé yi nga xam ne maam euh, Cheikh Mbacke moom moo jiite AES si seen conférence bi nga xam ni ñaareelu Euh, édition bi moom la ñu def euh, professeur Bakary Samb moom moo nar a def waxtaan wi si citoyenneté ak coexistence euh, pacifique dafa am xaarandi bu ñuy def léegi ànd ak Babacar Karajo balaa ñuy dalal sunu beneen gan muy Serigne Youssoufa Diop bu Hizbut Tarqiyyah